أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla subhanahu wa taala ñoo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ñoo ngi jéglu ci fan yi ñu tardé te ajuloon sunu coobare ñoomoon ay ngànt yoroon ay malaat kër ga ñaan yàlla subhanahu wa taala mu jéggal ñu sunu tarda yooyu su ko defee ñu ngi dellu siwaat ak yéen ci téere yàlla bi subhanahu wa taala tollaat ci suratul baqara di jëlaat aaya 272 benn aaya boo xam ne sunu borom subhanahu wa taala mu ngi ciy jàngal ay mbir bu ci njëkk mooy jawaazu atasadduq alal kaafir daganal gi nga xam ne daganal nañ ko sarax yéeféer al muxtaaj yéeféer bu aajowoo waaye loolu nag mi ngi bokk ci bi sadaqati tatawwu mooy saraxu volontaire wu coobarewu la zakata fa innaha haqqun almuminin bu fekkee azaka la kenn du ko jox yéeféer bu fekkee sarax nag nii mën nañ cee jox ab yéeféer kudul jullit kon atta yooyu foog ñu xam ko pour ñuy bañ a jaxase li jullit yi moom ak li ñeneen moom bu dee sarax kese kese kese mën nañ cee jox kuy jullit ku dul jullit bu dee azaka nag kenn du ko jox ku dul jullit parce que kooku dalil bu wér pëng moo ci ñëw yenent bi alayhi salaatu wasalaam nee na umirtu yàlla ma digal an axuza sadaqa ma jël sarax min agniyaikum ci seen ñu am ñi yéen julit ñi wa arudduha ma delloo ko ala fuqaraikum ci seen ñu ñàkk ñi kon ci ñan lañ koy jël ci julit yi am ci ñan lañ koy delloo julit yi ñàkk loolu mooy dalil bi ñaareel mooy sawaabu sadaqa aidun alal mutasaddiq ngëneelu sarax tiyaaba yi ci nekk day delluwaat ci ki saraxe waaye jëmul ci ki ñu sarax ki saraxe bu saraxee day am tiyaaba tiyaaba bi yëpp day delluwaat ci ki saraxe waaye jëmul ci ki sarax falisa loola tax bu fekkee sarax bi day delluwaat tiyaaba bi day delluwaat ci ki saraxe laa yadurru in kaana kaafiran même waa ji nga sarax bu dee yéeféer la yow amoo ci lor ndax tiyaaba bi day dellusiwaat ci yow kon dara desul ci waa ji comme day dellusiwaat ci jullit bi kon même bu fekkee ki nga sarax yéeféer la yow da ngay am tiyaaba ñetteel ñuy jël ci dars bi mooy wujubu al ixlaasu fi sadaqa mbokk yi ñun ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ku mu mën a doon ci ñun ngay joxe ngay saraxe na nekk ngir yàlla al ixlaas nañ ci dugal sellal fi sadaqa yi ci war mooy yajibu an ya an yuraadu biha wajha allahi taala la gayru yow mi joxe fexeel ba booy joxe nga joxe ngir yàlla bul joxe ngir su ma joxewul ñu sikk ma su ma joxewul su ma joxee déedéet na nekk ngir yàlla kon lii moom mooy darsu tey ñu ñaan buur subhanahu wa taala mu dëgëral suñu làmmiñ ba dunu génn téere yàlla bi subhanahu wa taala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون borom bi subhanahu wa taala nee na laysa alayka hudahum yow muhammad alayhi salatu wasalaam ñii nga ñii ngay waxal ñi ngay sonn ci seen mbir bëgg ñu baax yëgal ne yàlla gàllal ci sa loos ñoom pour ñu baax alhuda bi yadillah njub ci loxo yàlla la nekk wahdahu moom kese nag loo bëgg-bëgg baax su la yàlla baaxalul doo baax loo bëgg bëgg bëgg sa soxna baax bu ko yàlla baaxalul du baax loo bëgg bëgg bëgg bëgg sa mbokk baax su ko yàlla baaxalul du baax lu tax alhuda bi yadillah njub ci loxo yàlla la nekk wahdahu moom kese wala yamlikuhu ahadun siwaahu kenn moomul njub ku dul yàlla su fekkoonte ne njub nekk na ci suñu loxo kon yonent yàlla muhammad jubal aba taalib aba taalib nekk na ci sukuraat yonent bi taxaw ci mbaggam yi ci bopp bi naan ko waxal laa ilaha illa allah ma ñaan yàlla nga dugg aljanna lan la ko wax maa ngi dee ci samay diine imaam moo tax yàlla ne ko innaka la tahdi man ahbabta yow muhammad munoo jubal ku la neex kon yow loo bëgg bëgg bëgg bëgg nit baax su ko yàlla baaxalulee du baax laysa alayka hudaahum seen njub teguwul ci sa kaw ay anta ya muhammad yow muhammad la tastatiu munoo an tahdi ahad munoo jubal kenn munoo jubal kenn ci forcé lu tax innahum muxayaruun ñoom dañ leen tànnloo dañoo teg njub ak ndëngte seen kanam ñu tànn ndëngte kon munoo fexe ñu jub innahum muxayaruun alhuda alladi yaquuduhum ila al infaq njub gi nga xam ne mooy tax ñoom ñu génne seen alal joxe njub gi nga xam ne moom la yàlla bëgg ci ñoom yow muhammad laa tamlikuhu anta yow moomoo ko moomoo ko de nekku sa loxo lu tax nekku sa loxo mooy innaka yow muhammad laa tahdi mënoo jubal man ahbabta ku la neex gis ngeen nekk njub ci loxo yàlla la nekk doomu aadama bi ko yàlla bindee yàlla daf ko woon ñaari yoon waxa day naahu najdayni yàlla mu ne imma shakiran wa imma kafura su ko neexee mu jub sant yàlla bu ko neexee mu dëng dañ la tànn loo léeg-léeg nga dégg benn waay bu ne man nii ma mel nii yàlla la neexam bu neexoon yàlla ma mel nii yéen man nag kon su ma melee nii yàlla la léeg-léeg nga dégg sax tubaab yi ñu ne ku dëng yàlla moo la dëngal ku jub yàlla moo la jubal déedéet demul noonu de yàlla bi mu la bindee dafa am lu mu dugal ci yow lu ñuy wax xel soo egsi woon nga ne asalaamualeykum ci benn kër ñu ne wa aleykum salaam exil nga yéeg ñu ubbi saal bi ne la exil fauteuil baa ngi toog gaz baa ngi nii di tàkk ñu ne bismillah toogal fooy toog lu tax dañ ne la toogal rek kenn waxula ci fauteuil bi dañ ne la toogal exil bismillah ah bismillah exil toogal foo toog du tax nga toog ci fauteuil bi yow toogoo ci gaz bi lan moo la orienté ba teggiwoo cafetière bi toog ci gaz bi danga dem toog ci fauteuil bi même boo ci fekkoon dara lu tegu nga teggi ko toog ci lu tax ah sa xel moo la yóbbu ne ne fii la ñuy toog eh feer boo fay toog di dee waaw lu tax xel moom utiliser woo ko ci njub mi ci mbaax mi bi la yàlla ne won naa la ñaari yoon bii mooy bu baax bii mooy bu bon lu tax jéemoo jaar fu baax fi nga dem dugg fu bon bi fa ba pare ne borom bi moo la fa dugal yàlla dugalu la fa parce que yàlla waxuma la mu yem ci xel rek mais élément yépp élément yuy tax yow nga jur jaar fu baax yàlla defal na la élément yi ginnaaw xel ban élément moo ci tegu nopp yi ban élément moo ci tegu bët ban élément moo ci tegu ban élément moo ci tegu ban élément moo ci tegu gis nga yàlla daf la jox ay élément ay jumtukaay yoo xamante ne yii mën ngaa fexe ba rëcc ci mbir yi nekk ci sa kanam waaye doomu aadama nag daal di sànku innaka yow muhammad laa tastati u mënoo an tahdi nga jubal man tashaa'u ku la neex limaza li annahum muxayyarun ndax dañ leen a tànnuloo ñaar dafa nekk seen kanam ñu tànn looleen ñu tànn benn laysa alayka hudahum lasta muhaasaban kenn du la réglé kenn du la atte ala dalalihim ci seen réer ñoom bu ñu réeree yow doo taxaw di ko justifier ndax ñoom ñoo tànn réer lasta alayhim bi musaytir loolu ay baat la yoo xam ne yàllaa ko wax yonent bi walakin allah inama yaqul bu delluwaatee ci aaye yi nekk ci yeneen place yi danañ fekk yàlla naan ko wa innaka yow muhammad ginnaa la tahdi da ngay jubal ila siratin mustaqim ci yoon bu jub da ngay jubalaat ci yoon bu jub fële mu ne ko mënoo jubal kenn lan mooy déggin ci ñaari aaye yi mu ne ko laysa alayka hudaahum fi mu ne ko wa innaka la tahdi giñ naa ne yow da ngay jubalaate ci yoon wu jub bi nee na ay fa xawaa daawataka xaqun dafa ëmb aaya bi nii ñu wax léegi ci suuf ne yonent bi day jubal day jubalaate ci yoon bu jub bi muy siraatal mustaqim aaya bi dafa ëmb woote yonent yàlla muhammad ne dëgg la muhammad dafa taxaw di woote ku ko wuyu jub ndax da yàlla ne ko yàlla ne nit ñi wa in tuti uhu tahtadu su ngeen ko toppee rek jub allahu akbar gis nga de loolu mooy wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim ku topp yonent bi jub xool leen 124 mille yi ko toppoon ku ci dëng wax leen kenn yéen tey yéen tey waa ndakaaru seen tribunal bi gën a rëy tey waaye jiñ ne dafa sàcc ñaata milliards lañ wax ah 700 lan milliards 600 685 milliards xooleen loolu la ila benn milliard rek ñu ne benn waaye da cee jël 680 lan 85 milliards inna lillahi wa inna ilayhi rajiun 685 milliards nu ko benn nit di di amee nu ko benn nit di moomee waxuñu million de milliards ñi waroon yonent yàlla Muhammad na xool leen ku ci amoon dërëm xool leen xool leen ñoom ndeysaan amuñu woon dara moo ngi nii di ñëw sunu kanam ngeen xam ne ñoom bëgguñu woon denc sax dërëm wala ñaari dërëm mu ne lasta muhaasaban yow muhammad kenn du la réglé ala dalalihim ci sànkute ñii walakin aaya bi ëmb na mbokk yi la tastatiw an tahdi man tasha munoo jubal ku la soob kullu insanin lahu ixtiyaar ixtiyaar doomu adama bu nekk da nga tànn da nga tànn léegi-léegi ci diggante 4 heures ak 5 heures am na benn programme bu amoon fii ci stade bi wala amul woon ah amoon na lu tax demu leen foofu ngeen tànn ñëw ci jàkk ji ngeen tànn ngeen tànn wala allahu akbar da ngay ñibbi léegi reer nga fekk ñu teg som bi teg fële supp ñu ne la bismillah nga ni leelan la ñu ne la ceeb nga ni ah jox leen ma ceeb bi waaye man xam ngeen naanuma som bi nga tànn doomu aadama day tànn fa laysa alayka hudahum seen njub yàlla tegu ko sa kaw yow muhammad laysa alayka an tahdi alhuda alladi yadfa'uhum ila an yunfiqu li tax tey ngay laaj ñu bañ a joxe ñu ŋoot nekkul ne yow yaa leen di jubal déedéet gis nga képp ku woote woote lislaam buñ laajee da ngay joxe képp ku am iman buñ la laajee ci yàlla da ngay joxe mais boo amul iman nag buñ la laajee da ngay yox yoxi ku amul iman buñ la laajee da ngay yox yoxi soo amee ngëm yàlla nag bu ñu laajee dara du fanaan sa poos lu tax loolu mooy yàlla subhanahu wa taala moo lay animé ngëm gi moo lay animé ba da ngay joxe fal force doo too ŋott mu ne li la war yow muhammad antu bayyi na mooy nga leeral gis nga kuy woote yow woote rek moo la war nga leeral nga jottali nga fàttali nga xuppaate nga soññaate kuy wax ci diine lii moo la war mais mënoo jubalaate kuy wax ci diine li nga mën mooy an tubayyina lahum nga leeralal nit ñi diine ji li nga mun mooy an tuballirahum nga jottali leen li nga mun mooy an tuzakkirahum nga fàttali leen li nga mun mooy an tahustuhum nga soññu leen li nga mën mooy an tuxbirahum nga xabaar leen waaye nag mënoo forcer kenn ne ko tey nga julli tey nga baax lu tax laa ikraha fi diin laa ikraha fi diin diine kenn du ci forcer nit mën nga ñëw nag di taaralal nit ki di ko leeralal di ko wax yu baax yi di ko soññ di ko moytandiku loolu bon ba xolam ubbeeku ay noppam nangoo dégg bëtam nangoo gis mu daal di jël li ngay wax al insaan mu xayyar fi ma yataallaq bil hidaaya dafa am benn masala boo xam ne il faut ñu taxaw ci tuuti mooy ci mbirum njub ci mbirum njub doomu aadama dañ ko faa ubbil bunt pour mu tànn ci mbirum mbaax ci mbirum njub dañ laa ubbil bunt nga war a tànn soo bëggee baax nga tànn soo bëggee bon nga tànn mu ne walakin allah yahdi man yasha yàlla mooy jubal ku ko soob man yashaau an yahtadi ilayhi yahdihi llahu azza wa jal képp ku jóg soobu yoonu yàlla wallazina jaahadu fiina la nahdiyannahum ah subulana yàlla nee na ñi sonn gis nga wallazina jaahadu fiina ñi sonn ci man bëgg a jaar ci sama yoon la nahdiyannahum subulana dinaa leen jubal ci sama yoon wi parce que dañoo jóg sonn pour bëgg a jub bu fekkee yoon ak sonnoo ci yoonu yàlla da ngaa jóg sonn ci yoonu seytaan nooy def ngay dëng moo tax yow yaa tànn bu kenn waxati ndëng ku dëng yàlla la dëngal abadan yàlla dëngalul kenn nee na fa anta mu xayyar yow dañ laa tànn loo nga tànn in chita al hidaya boo bëggee njub jub yahdika allahu azza wa jalla yàlla jubal la boo jógee jaar ci yoonu baax yoonu jàkka jaa ngi nii yoonu stade baa ngi nii ku bëgg a dem stade da ngay wut équipement ku bëgg a dem jàkka ja looyu équipement est-ce que mës ngeen gis ku sangu ba pare sol ay kawasam sol kilotam sol mayo sol godaasam takk ba mu dëgër jubal jàkka ja soo gisee ku mel noonu loxo ya sang jëm boo gisee ku sang ba pare sol yére bu weex tal xamisam ah xaftaanam teg koppateem teg kaalaam sol ay maraakisam nee na maa ngi dem jàkka ja da ngay xam ne kii jàkka ja la mën a jëm jàkka ja su ku mel noonu bu la ne maa ngi dem star sax da nga koy xoolaat ah nga ni ko jëm waaw gis nga da nga naan ko loo fay uti mais këleel bu la ne maa ngi dem foofu da nga naan ko gis nga kon doomu aadama yàlla daf ko tànnaloo mu tànn mu ne ila ma turid ci lépp loo namm nag ci loolu la la yàlla di jubal li annaka mu xayyar ndax dañ laa tànn loo wa li anna al machiatu muallaqun bi ragbatika coobare bu bi dafa dafa aju ci sa bëgg-bëgg coobare bi coobare bu bi ci sa bëgg-bëgg la aju bi nga bëggee rek da nga jóg def ay geste pour nit ñi xam ne yow lii nga bëgg waa ji bëgg baax nekkoon ci lu bon bëgg baax bi mu nee nit ñi bàyyi naa lu bon li njëkk a nit ñi njëkk a seetlu mooy mu lakk bagage yu bon yooyu mu amoon commencé fréquenter milieu yu baax yi ñu ne ko lii nag mu ne bàyyi naa lu bon waa ji bëgg lu bon li mu njëkk a def mooy bàyyi lu baax jëm ci lu bon kon dafa tànn mu ne sunu borom subhanahu wa taala nee na laysa alayka hudaahum seen njub yàlla gàllu la ko yàlla gàllul njubu kenn ci kenn lakin allah waaye yàlla sunu borom subhanahu wa taala yahdi mooy jubal man yashaau ku ko neex ki ko neex mooy kan mooy ki jóg sabab lu jaar ci yoonu yàlla yàlla daal di koy jubal mu ne law faradna anna insaan wa ma tunfiqu min xayrin fa li anfusikum aaya bi dafa bokk ci aaya yi nga xam ne kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax mooy wa ma tunfiqu min xayrin fa li anfusikum yàlla nee na wa ma tunfiqu lépp lu ngeen mën a dépassé lépp lu ngeen mën a joxe min xayrin min xayrin ah ci yiw ci mbaax ci lu mu mën a doon na ngeen yëg ne joxu leen ko ma sàmm def leen ko ma demba fali anfusikum seen bopp ngeen ko defal lii kay doy na bu yàlla ne woon alal rek min xayr yenn saa yi sax am na ulama u tafsir yuy fiwee min xayrin min maalin ci alal waaye yàlla min xayrin la wax lépp lu ngeen mën a dépasser ci lu baax est-ce que lu baax alal kese la kii ne na man awma alal mais am na leneen lu mu am kii ne man awma le mais am na lii kii ne awma le mais am na le kii ne awma lii am na le ñoo ñëpp bu ñu boolee loolu day nekk dara day bu ñu bëggoon tabax benn jàkk benn waaye ne man day am naa terrain xaw ma xaalis mi am naa terrain bi terrain baa ngi nii kii de ñëw ne man de am naa xaalis mi ngi nii kii ne man de man de ay birig rek laa yor kii ne man de am naa ciment kii ne man am naa béton kii ne am naa fer kii ne man de mun na dafa am bi ñuy tabax grande mosquée bu Dakar dañuy jël ay entrepreneur jox leen liggéey bi ñu yéegi nag ñu jox déclaration ci rajo bi ñu ne ku xëy na nga ñëw benn waaye ñëw rek simmeeku jël pelle di gas rek benn benn entre benn benn waaye bi doon liggéey bu ñu joxoon ci liggéey bi ne ko ku la pointé mu ne ko yàlla yow nekkoo sama liste mu ne ko maa ngi ci liste yàlla lu sax waa ji ne ko ku la pointé jàppoon ne kii bu wàccee dañ ko war a fay 2000 am wala 3000 am journée ne ko nekkoo sama liste ku la pointé mu ne ko yàlla liste bi nekkoo ci mu ne ko maa ngi ci liste yàlla jël peel bi commencé gas kooku loolu la am wa ma tunfiqu min xayrin fa li anfusikum lépp lu ngeen mën a def ci xeetu lu baax min xayri la yàlla wax xayr bu ne woon alal rek kon borom ñi miskin yi ñu ne ah ñu ne amuñu mu ni liggéey lislaam ñoom ñu toog fe ñu ne ñun amuñu waaye xoola waa ji ñëw jël peel bi di gas amul xaalis amul ciment amul béton amul fer amul mais am na am na dooleem mu ñëw jox ko yoonu yàlla loolu mooy lislaam min xayr kooku loolu la yor tey loolu mooy sunu problème jàpp nañ ne bu ñuy waxee liggéey lislaam wala ñu ne nàngam ngay gis ni ku dem toog fële saxaaba yi keroog ba la yoon di liggéey ne tabuk gaa yi di joxe di joxe di joxe di joxe di joxe di joxe am ñu ñëw ne yonent ñun de bëgg na noo dem waaye ñu ñëw pour nga yóbbu ne yonent bi ne yéen mun leen dem ñu ne yonent bi tax yonent bi ne aw ma fas bu ngeen yéeg aw ma mbaam bu ngeen yéeg aw ma gëléem bu ma leen jox aw ma jaasi bu ma leen jox gaa yi taxaw di jooy ñooñu xam nga lan lañ tuur ci lan lañ joxe keroog seen rongoñ ñun ñun foog ñu dem taxaw di joxe xool ñooñu seen rongoñ sax tuur nañ ko ñun lan lañ joxe ñun lan lañ joxe voilà suñu temps boog ñu koy indi ci jàkka ji di jël dars du dëgg ku nekk li nga joxe nga joxe sa waxtu fi sabilillah nga am waxtu yoo xam da nga koy jox suñu borom subhanahu wa taala waxtu yi bu ko jox kenn yàlla rek nga denc ko yàlla ne ko yii yow yaa ko moom du ma ko jox nit loo am gan gan mu foor foor foor nga bàyyi ko fa wala nga indaale ko dars ama tunfiqu min xayrin bu yàlla waxoon sax waaye dama ne fali anfusikum seen bopp ngeen ko defal seen bopp seen bopp jox leen kenn lépp lu ngeen mën a def su lu baax seen bopp ngeen ko def olof yi dañuy wax ne ku tëdd di ku jaaxaan di saw sa bopp ngay nax te bala nga koy xam nga jóg mais gis nga kuy def ci yoonu yàlla misaal baa ngi ñëw mu ne boo amoon benn condamné boîte weñ boo xamante ne chaque jour sa salaire li ciy ëpp yaa ngi koy dugal ci condamné boobu est-ce que loolu da nga koo ñàkk pertement la hein soo amoon benn boîte condamné chaque jour li nga ëppal nga dugal ko ci chaque jour li nga ëppal nga dugal ko ci est-ce que loolu nga ciy dugal da nga ko perte rawatina loolu nga ciy dugal boo xamante ne boo ko ci dugalee day double boo ci dugalee 10 000 20 000 lay nekk nga dugal ci 20 000 mu nekk 30 000 nga dugal ci 30 000 mu nekk 40 day def di nga di nga sawar ci dugal gi wala doo dugal pourtant loolu la ñu yàlla wax man jaa bil xasanati falahu asru amsaaliha yàlla soo ko joxee benn mu fay la fukk boo ko lebalee ker gars yi nee nañ yàlla boo sama question bi boo ko xamee mooy jox la seede yàlla nee na gars yi boo ko lebalee ker lu mu lay jox lu mu lay jooju kii laa ko doon wax waaye maag moom yàlla boo ko lebalee ker mu fay la guddi allahu akbar guddi xanaa kuy jaay ker am ku indi guddi ah laa ilaha ker gi borom ker gi nu muy def ni Ousmane defoon yahud bi ca Médine yahud bi ñu ne cëpp Médine yahud bi di jaay teen bi ndox mi di jaay paan loo xamante ne kenn mënu ko jënd bu julli di xëyee mar bay mari xeer waaye di jaay ndox mi Ousmane benn bis ñëw na ko dama bëgg nga jaay ma genn wàllu teen bi nga jël genn wàll mu ne ko ma jaay la genn wàllu teen mu ne ko waaw rek mu dagg benn tarif bu saar Ousmane génn joxe léegi nag ni ñu koy séddee Ousmane ne ko da ngay root tey ma root suba noonu la ñuy ayee tey yaay root suba man maay root Ousmane bu waree root rek mu ne jullit ñi xott yeeg pot yeeg bërigo yeeg satala yeeg ndaa yeeg bool yeeg palaat yi tame yi sax na ngeen ko root gaa yi roota roota roota root ba bu ñu xëyee suba waa ji du gis ku jënd ndax ñëpp am na ndox ndox maa waaw yéen yéen tey ñu ne ko am na ndox kër ga dañ ma ñun sax ndox mi xam ñu ne ñu koy def waa ji ne yii nekk Ousmane def maa piégé la ilaha mu réccu mais kii nax na ma chaque jour daal bu waree root du gis kenn bu Ousmane waree root ñëpp indi mbaam yi ñi indi gëlëm yi ñi indi ñu root tout Ousmane toog weer ñëw ne ko noo mun nga jaame genn wàllu teen bi mu ne ko indi ñaata bu bëgg a seeral Ousmane ne ko bàyyi ko bàyyi ko bàyyi ko temps laa ci mën gis nga bu njëkk ba moom moo dagg tarifam waa ji jënd tey nag mu ne waaj na ko mun ma loolu de mu ne waa indi man kay xamoon naa ne sama teen bi perte na Ousmane jël teen bi daan ne fii sabilillah ku mu neex rootal bu kenn tëjati gis ngeen Ousmane ibn Affan loolu mooy mbir mi jullit yi dañoo war a gëm ne jullit su defee dara yàlla daf koy fay jullit bu defalee jullit yi dara defal lu ko jullit yi kan la ko defal gis nga yàlla même bi muy wax yonent bi dana yonent bi ci yéen la bokk laqad jaakum rasulun même bi yàlla di wax jëw di ko araamal dana yéen bu leen lekk seen bopp lépp yàlla day wax seen bopp yéen seen bopp la seen bopp seen bopp li anfusikum ak bëri ci alxuraan te loolu yëpp yàlla wax yéen la seen bopp est-ce que nit dina def li boppam ñu ne déedéet mu ne kon waroo ko def say say bopp su ko defee borom bi subhanahu wa taala mu ne wa ma tunfiqu lépp lu ngeen mën a joxe lu ngeen mën a dépasser min xayrin ci yiw ci lu baax ci alal ñu ne ah mu ne fali anfusikum ndeysaan tarwi kutubu siira borom téere siira yonent bi alayhi salatu salaam ñu ngi nettali ñu naan nabiya sallallahu alayhi wa sallam yonent bi kaana yuwazziu lahma shaat yonent bi benn bis dafa rey xar muy séddale yàpp mi ba mu koy séddale soxna Aïcha mi ngi ci wetam ànd ak moom di ko jàppale ci li ñuy séddale yonent bi séddale yàpp bi yëpp bopp bi dënn bi pooj yi faar bi baat bi yëpp yonent bi séddale ndeka Aïcha miy séddale bëgg na ci mu jekki-jekki dara desatu fa lépp lay ba mu des yeel yi Aysa ne ko yaa rasulallah ay waay yow yonent bi yow yàpp bi séddale nga lépp ba mu des yeel yi bàyyi loo ñu fi dara mu ne ko nga kañ bàyyil naa leen fi lépp ba mu des yeel yi déggu leen wax bi de ne ko Aysa wallahi xar mi lépp fi nekk ba mu des yeel yi ah ndeysaan gis ngeen Aïcha yonent joxe nga lépp ba mu des yeel yi mu ne ko wallahi Aïcha lépp fi des ba mu des yeel yi allahu akbar est-ce que ñun mën nañ tolloog ñii ñun tey yow boo doon joxe ñun tey bu ñu doon joxe mbokk yi bu ñu doon joxe nañ xool suñu bopp boo doon joxe même bu dee yére sax da nga naan waa da nga naan sa soxna sama yére boobu ma jëndoon 1901 anamu. nga ne ko bu moytul ganilaa bi de moytul va kii kii ana bële kii bi waaw il paraît dafa de gis naa sax njaago bi da koo lakkoon mi ngi koy fóot génne ko joxe joxe li nga bëggul ngay joxe te yàlla nee na lan tanaalul bir te tunfiqu xoola yonent bi yonent bi lan la joxewul kon bu fekkoon ne fii li ñuy wax ñun ku la mayoon ay yeel léegi ay yeel ustaas am ay yeel a ngi nii nga supp ko la koy wax gis nga bu ma fontoo noo doo ay yeel xoola yonent bi joxe lépp ba mu des yeel yi Aïcha ne ko yonent ay waay yow joxe nga lépp ba mu des yeel yi mu ne ko wallahi Aïcha lépp fi des ba mu des yeel yi ndeysaan moo tax jullit yi war nañu delluwaat ci histoire yonent bi alayhi salaatu wasalaam jële nañ ci Omar ibnul Xataab ba tey radiallahu anhu wa ardaahu téere yi nettali histoire Omar ñu ne Omar benn bis dafa xëy yor pom mu ne akaltoha zahabat at amtoha baqiyat muy mu ne muy def ni pom bi di ko capte bu ko sànnee ndeyjoor càmmoñ capte ko ndeyjoor bu ko sànnee ndeyjoor capte ko càmmoñ naan akaltoha zahabat at amtoha baqiyat su ma ko lekkee mu dem bu ma ko joxee mu des su ma ko lekkee mu dem bu ma ko joxee mu des mu daal di koy jël joxe ko ndeysaan su ma ko lekkee dem na su ma ko joxee mu des fi te damaa bëgg mu des fi mu daal di koy joxe ndeysaan lu tax lu tax Omar def loolu yonent bee ko yar li yonent bi def la Omar di def gis ngeen parce que yonent bee ko yar gis ngeen nu mu defoon ca xarma ixwaani bayna yadayka maalun almaalu lazi tunfiquhu yazhab sa kanam a ngi nii alal a ngi fi sa alal a ngi nii sa kanam alal ji nga xam ne yaa ngi koy joxe yaa ngi koy dépassé ci sa lekk ci sa naan ci li ngay sol ci say bànneex loolu lépp day dem boo jëloon junni yox sa soxna ne ko toggal reer reer boobu day dem boo jëloon fukki junni def ci yére yére boobu day dem boo jëloon ñaar fukki junni def ci nangam day dem waaye gis nga dërëm bi nga xam ne da nga ko joxe fii sabilillah dërëm boobu day des ndeysaan bépp dërëm boo jox miskin ci yoonu yàlla day des ñu ñëw ci li des ci aaya bi lu ciy jëlee laa yusamma al infaaqu infaaqan illa ida kaana ibtigaa wajhillah joxe sarax dépasse ci yoonu yàlla du nekk ci yoonu yàlla mukk lu dul nga namm ci jëmmi yàlla da moo tax ñu war a tàmm ñun ñëpp sellal di joxe ngir yàlla di def ngir yàlla dama bëgg samedi bii di ñëwaat bala ñuy jël dar si tafsir kenn ku nekk mu wax ma def naa lenn ngir yàlla joxe naa ngir yàlla seeti naa sama benn mbokk ngir yàlla jéggal naa kenn ngir yàlla jàng naa nangam aaya ngir yàlla woor naa bésu sàngam ngir yàlla def naa nangam ngir yàlla loolu mooy nekk suñu leçon bii di ñëw bu ñu demee ñun ñi toog fii yëpp ci jàkka ji kenn ku nekk na nga ko dund na nga def lenn ngir yàlla balaa samedi bii di ñëwaat defal dara ngir yàlla bul ci dugal keneen bul ci dugal sa bakkan bul ci dugal sàmba bul ci dugal defal dara ngir yàlla sa digganteeg yàlla ngir yàlla kan moo pare pour def loolu sunu borom nee na laysa alayka hudahum seen njub teguwul ci sa kaw walakin allah waaye yàlla yahdi mooy jubal man yashaaw ko ko neex wa ma tunfiqu lépp lu ngeen mën a dépassé min xayrin ci yiw ci mbaax fali anfusikum seen bopp ngeen ko defal wa ma tunfiquuna wa ma tunfiqu illa ibtigaa wajhillah na ngeen xam ne lépp lu ngeen war a joxe na nekk jëmmi yàlla ngir yàlla na nekk ngir yàlla loolu nag mooy aslu al aslu fil infaq an yakuna ibtigaa wajhillah joxe ci yoonu yàlla mooy li ciy cosaan mooy na yàlla tax joxe soo ko déggee li ciy cosaan ci diine mooy na yàlla tax sooy joxe te yàlla taxul rek perte la ñaari perte nga perte kiy joxe te joxewul ngir yàlla ñaari perte la perte bi ci njëkk loo perte sa alal dem na ñaareel amoo tiyaaba loolu nag musiba gënu koo rëy li waa ji defoon papam dee ñu dem suuli ko ñëwaat gars yi ne ko nañ rey kuy mi mu ne mu ma ñàkk sama papa ñàkk sama kuy du ma ko def waaw ñàkk sama papa kay doy na waaye mu ne ma ñàkkaat kuy mi duma ko rey gaa yi ne ko foog ñu rey ko mu ne ko kenn du ko fi rey waaw waxul dëgg kuy mi lu mu ci wut ban téere lañ jàng ne góor gi dee ne dañoo war a rey kuy mi xanaa dañoo yeb kuy mi rek waaw Sénégal moom dañoo bëgg a yàpp waaw benn waaye économie économiste la nee na Sénégal li ñuy fii rey ay nag amul fenn ci monde bi wax na dëgg fii chaque jour xew yaa ngi am ñu ngi rey nag chaque jour mën nga ne saa yu ñu xëyee Sénégal nag dana dee ay nag ah ay nag chaque jour bu ñu xëyee waxuma yi ñuy rey seeraas rek pour nit ñi di ko déedéet ngénte yi dañuy rey nag xéet yi dañuy rey nag dëj yi dañuy rey nag gàmm yi dañuy rey nag màggal yi dañuy rey nag te yooyu du fi jeex bis bu nekk am na benn programme allahu akbar
waaw oustaz te ren di nag yoonu yàlla dañ ko war a def ci yoonu yàlla kese lañu war a rey yonent bi nee na laana allah man zabaha li gayrillah yàlla na yàlla rëbb ki rendi te rendi lul yàlla moo tax am na benn borom xam-xam buy tere di lekk ci yenn xew-xew yoo xamante ne du xew-xewu islam mu ne ku ci lekk lekk nga lu ñu rendi lu ñu rendi lul yàlla maa ngi document yi mu ne joxe li ci cosaan mooy jëmmi yàlla subhanahu wa taala laa yusamma al infaaqu infaaqan illa ida kaana ibtigaa wajhillah joxe kenn du ko tuddee joxe ci yoonu yàlla lu dul rek yàlla rek laal ko bu ko yàlla lalul personne al infaaq ibada laa yakunu al infaaq ibada illa ida kaana ibtigaa wajhillah joxe du nekk jaamu yàlla lu dul nga namm ci yàlla joxe jaamu yàlla la wala du jaamu yàlla jaamu yàlla la ni ngay jullee noonu nga war a joxe noonu nga war a woore ni ngay woore noonu nga war a joxe ndax yàlla moo ko santaane anfiqu fi sabilillah joxe leen ci yoonu yàlla joxe boobu nag kañ lay nekk jaamu mooy yàlla tax bu yàlla taxawlee joxe boobu du nekk jaamu yàlla yàlla ne wama tunfiqu wama tunfiquuna la wala wama tunfiqu wama tunfiquuna illa ibtigaa wajhillah wama tunfiqu min xayrin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun borom bi nee na du ngeen joxe mukk wama tunfiqu du ngeen mën a joxe min xayrin ci yiw ah lépp lu ngeen ci mën a joxe ci yiw yu waffa ilaykum dañ leen koy delloo yu raddu ilaykum dañ leen koy delloo xoolal lool rek yàlla leen boo joxee ma delloo la te yow benn nga ma jox man bu ma lay delloo na lay delloo fukk ndeysaan loolu mooy sànq-sànq ñu jox la benn misaal ci condamné booy dugal condamné bi ngay dugal xaalis bés bu nekk nga xëy dugal ci condamné condamné boobu ndax lu mu yàgg yàgg nga ciy dugal ndax da ngaa perte. war na ñun ñëpp war nañu daaj condamné condamné boo xamante ne yàlla lañ koy jox saa ñu xëy dugal dugal ci dara yàlla din ko dencal. ndeysaan dégg ngeen li ma xayis ka déggu leen ko de am na ñu ko déggul de ma ne. ñun ñëpp war nañu daaj condamné waaye condamné boobu duñ ko dugal suñu ronlal de duñ ko dugal suñu armoire de duñ ko dugal duñ ko yàlla lañ koy dénk condamné boobu yàlla lañ koy dénk saa ñu xëy dugal ci dara ku may tontu question boobu kan moom ma koy leeralal non non non ñun noonu yéen da ngeen dégg olof ñu déggul olof bismillah nga joxe ngir yàlla bis bu ne nga jël rek jox dara ngir yàlla nga ne yàlla jox naa la lii de bismillah mi ngi nii allahu akbar bu leen fàtte ne am na ñeenti nit am na ñetti nit ñoo xamante ne seen jëf buñ jëf ngir yàlla moo leen sëfe yaa ngeen hadis bi ñu duggoon ci xuntuma voilà xeer bi bërëngu tëj xuntumi ñu xalaat lan moo leen war a génne ñu ne leen ñu xalaat xam ne dara mun leen génne lu dul jëf ju ñu jëfoon ngir yàlla kenn ki ne man de amoon naa ndey ak bàyyi waaye ñoo ma gënaloon lépp sama dara daawul lekk lu dul sama ndey ak sama bàyyi lekk te loolu yàlla rek moo taxoon benn bis sax guddee woon nañu reer ma tere samay njaboot reer ndax sama ndey ak sama bàyyi reeruñu bu fekkee ne loolu yàlla rek moo taxoon na xeer bi ubbeeku xeer bi bërëngu tuuti ñu gis lumière keneen ne man de am na benn xale bu jigéen bu ma nogoon ba ma wéet ak moom bëgg a may ak moom yàlla mu ne ma doo ragal yàlla ma jóg ci kawam te loolu yàlla rek a taxoon bu fekkee ne loolu yàlla rek a tax ay waay xeer bi xeer bi daal di ubbeeku waat keneen ki daal di ne man de liggéey loo woon naa benn waay ma war ko fay mu dem fayuma ko ma jël salaire boobu jënd ci ay gàtt mu jur àll bi yëpp waa ji toog ay at daal di ñëw ne ma sama alal laa jël si ma ne ko àll bi yëpp yaa ko moom waa ji ne ma mënul nekk ma expliqué ko lépp waa ji buub alal ji bàyyi moo fa benn mbote lépp la yóbbu loolu bu fekkee yàlla rek moo ko taxoon na xeer bi dañ xeer bi daal di ubbeeku ñoom ñett ñu daal di génn ndeysaan ki ma doon jàngal hadis bi dafa ma wax ne bu doon ñeent nag te yaa leen ñeental yow looy wax ma delloo leen ko yéen it bu deen yéen ñi kenn ci ñoom yaa leen ñeenteel looy wax ndeysaan loolu moo tax kenn ku nekk ci ñun ki ki ñuy jàngal daf ñuy wax ne kenn ku nekk ci ñun war nga jëf-jëf boo xam ne ëllëg moom ngay bette nit ñi ci kanamu yàlla dégg leen li mu wax de na jullit bu nekk war nga jëf benn jëf boo xam ne ëllëg yowmal xiyaam moom nga tëll ci kanamu yàlla bett ñëpp ñu ne diw moo def li ñëpp waaru ku nekk war nga préparer loolu ci sa bopp jëf jooy bette nit ñi ëllëg ngir yàlla ñu leen nga toog nii rek mooy li ma waxoon sànq jëf joo xam ne yàlla rek moo tax nga def ko am na benn waay boo xamante ne dafa waxoon laa ilaha illa allah mu faatu ñu peese ay jëfam yëpp amul tiyaaba ñu war ko yóbbu safara yàlla mu ne leen fu ngeen jëme waa ji ñu ne kii day dem mu ne leen déedéet kii ay jëfam ëpp na lii de ñu ne déedéet malaaka yi ne yàlla déedéet kii jëfam kay mi ngi nii yàlla mu ne déedéet kii am na benn jëf ju mu jëfoon ngir man yéen àttanu leen jëf jooju ma jël ko denc ko ndax yéen mun leen ko woon bind allahu akbar malaaka yi ne yàlla loolu anamu yàlla ne leen gis ngeen montagne yi ñu ne waaw mu ne yàlla waa ji ne yàlla ne leen waa ji moo waxoon laa ilaha illa allah moo fees montagne yi kii warul dugg safara allahu akbar yonent bi ne man kaana axiru kalaamihi laa ilaha illa allah daxala aljanna allahuma ijal axiru kalaamina laa ilaha illa allah mbokk yi hadihi l aaya aaya bi laha maanayaan am na ñaari maana alula an allaha yaalamu ma tunfiquhu yàlla xam na li ngeen di joxe loolu ñëpp war nañ xam ne yàlla xam na ne li ngeen di joxe wa ma tunfiqu min xayrin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun ku nekk ñun war na xam ne an allaha yàlla yaalamu xam na ma tunfiquhu li ngay joxe yàlla xam na ko kon est ce que jalatina beneen mbir li ngay def yàlla xam na ko wal maana saani ñaareelu maana bi an allaha yuwaffa ilayk ma tunfiq adaafan mudaafa li ngay joxe yàlla nee na dama la koy delloo te su ma la koy delloo dama la koy dubleel adaafan mudaafa ay duble yu limu limu limu kon isan fekkee ni lii leer na fa mallazi yamnauka an tunfiq kon yow lan moo la tere joxe la tere joxe kon wala amuloo assurance ci li wala wóoluwoo ki la waa wax ji ñaari nit mbir moo tax nit ñi duñu joxe ñaari mbir kan moo ma koy wax ñaari mbir moo tax jullit yi duñ joxe seen alal ñaari mbir bismillah ñaari de ku ko wax ma jox la CD bi fet bi ma dese nii déedéet déedéet ah déedéet bismillah keneen bismillah keneen bu njëkk mooy dooful iman ñàkk ngëm dooful iman ngëm gu dëgërul moo tax nit ñi boole laaja duñ joxe parce que ngëm gi dëgërul ñetteel mooy al jahlu bi ma inda allah mooy dañoo réere li yàlla yore yàlla ne ku ma jox ma yàlla ma gis fi gars yi joxe ba sonn kenn amul dara al jahlu bi ma inda allah ak daful iman ñaar yooyu moo tax nit ñi duñ joxe wóoluwuñ yàlla xool ñi ñi ñi xamoon ñu wóolu woon yàlla Omar Aboubacar gazwatu Tabuk Aboubacar dafa indi alalam yonent bi la ko loo fa des mu ne bàyyi naa leen yàlla ak yonent bi Ousmane joxe alalam yëpp yonent ne Ousmane lu mu defate yàlla du ko xool su Ousmane bàyyi woon julli day dugg àjjana bu bàyyi woon woor day dugg àjjana bu Ousmane defoon lu ko neex day dugg àjjana yonent moo ko wax yonent bi moo ko assuré maa yantiqu anil hawaa ne Ousmane lum defati yàlla du ko xool dafa wóolu yàlla ñun nag lu tax duñ joxe mooy doful iman sunu ngëm mooy yaafus ñaareel mooy aljahlu bi ma inda allah mbokk yi lii mooy sunu darsu tey ñu ñaan bur yàlla subhanahu wa taala mu jéggal ñu njuum tey assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh